damay ragal lu gént gis la <laughs> loo gis bu def fàng la. Euh, mu ci jigéen kon dañuy mosaat as lëf ci élément démb bi. après ñu ñëw ci détail bi. amuñu benn jafe-jafe ba maanaam kenn ki bi génnee nee na da keneen ki da ko fekk muy sango kenn ki mu ngi si néegam xam nga heure yi day fekk nit ñi di pause di di dal noonu. Mm-hmm. moom mu génn mais ñaari doomam ñu fi bàyyi nag moom. Mm. ay tut tànk lañ waaye wax dëgg yàlla ñoom kii moom xàmme nañ bu baax moom dem nañ bu mag a rakk lañ waaye ñoo ànd. Mm. waaye bi muy demee li ma si jaaxal ci dem bi moom maanaam daa yóbbul ay yére yóbbul dara pour programme dem programme boo xam ne dangay xam ne daal kii day dem. Mm-hmm. yóbbul ay yéreem benn yére bi mu soloon benn robe may. kon daal ni nga ko gisee daal comme ku doon doxantu doxantu côté marché rek far dem ba léegi ñëw yàlla daal jaare noonu daal man daal loolu moom moo xaw a ëpp suñu bopp yëpp. ndax mën nañoo xam nu mu tuddoon. maam jaare maam jaare jàng. maam jaare jàng jigéen. xam nga des fois jigéen réer. fekk dañ koo këf ak yeneen yu ni mel xam naa nag mbir mi jombul dem na ci loxoy enquêteurs yeeg yu ni mel dem na ci kii waaye daal ay jàngan mi ngi ci nit koo xam ne da nga dem joteewug waa kër gi joteewug sa jëkkër da ngay dem yóbbuwoo yére may nga xaalis xale yi nga toogala ni leen maa ngi ñëw kenn gisaatu la mm-hmm. loolu ëlëm na ma waa démb rek bi ñuy tëj maa ngi la koy wax ma ne le fait nga génn te tàggoowuloo rek mm-hmm. euh, may say gone ay weccet daal di dem peut am na soxla peut bu mu doon dem dem doxi hmm. donc dafa dem doxi soxla ba loolu dal ko fa wala hmm. soit dafa dem ngi tey bakkanam dem hmm. loolu moom fi ndoon nii tant que gone gi feeñul mënuñu koo leeral parce que yàgg nañ fi gis ay nit yu réer comme di ko Assane di waxee ñetti fan ñu ñëwaat ne la feeñ na yow mii ñëw nga fii ne am na fi ndaw su fi réeroon ba mu feeñee waa famille bi dañu ne la neel <coughs> jarul leeral waaw waaw Walf la woon fii. <laughs> waaw boobu DJ DJ Prince moom invité woon. <laughs> ma indi kaa bi ci télé bi traité ko. waaw ca am ko ma woo côté dëkk sàngam ni ma ndaw saa ngi fii ba ma ñëwee ci télé bi ni ndaw si feeñ na. dama damaa génn famille bi woo ma ni ma boo ko waxaatee ñu yóbbu la ci yow. waaw parce que xam nañ ne ndaw si ay caaxaan képp la nekkoon donc yow su fekkee ni da nga. fa nga nekk réer ga ba léegi kenn waxaatu ca. réer boo xamante ne ni yow kenn waxaat ne <laughs> feeñ nga. ñu la boo ko waxee yóbbu la police. waaw loolu kay nga xam ne. ni ma maan maanul ci ci ci affaire bi. da ngay ngay sëy peut-être bëggatuloo sëy bi. yaa ngi yor ay doom. libère libère dëgg yàlla yàlla tamit tooj tooju gàllaaj da ngaa maandu ci. ñoo ma jox kaa bi ñoom ñoo ma ko jox ñoo ko ko na maandu na maandu rek. xale bi ma fi ne réer. mais mais bu ñu demee ba ne réer na xëy na la maandu ci. waaw ci réer ga. non boobu dafa ñu ma leeral xeetu feeñin bi. donc. Euh, mais kii moom wax dëgg yàlla alaaj alaaji. waaw moom lii kaa bi doy na waar. waaw kaa bi moom wax dëgg yàlla Euh, parce que amul benn indice boo xam ne kilifa gi euh, joxe na ko. Mhm. ci biir kii bi xam nga démb ma jigéen bi muy wax sax maa ngi koy wax ne ko. Mhm. ci wàllu wi nga xamante ni moom la expliqué maanaam le fait que mu ne jox na xale yi xaalis. Mhm. ma jigéen moom day soob kii moom vaar kii war na koo vaar li mu waxoon démb ak li mu wax tey. ah laa waxaat loolu laa waxaat que démb bi mu ñëwee daal de gi nga ko na mu dëgëralee kii bi ma jaaxal ah, ba waaw le fait ko mu joxe wecca rek ma jigéen bëgg a ñëw ca wecca ma ne ko ma jigéen dafa ñaaw njortu ci leneen waaw waaw dafa ñaawoon njort ah, ci sama xel ah, xam nga nit ki ma par exemple yi nga ànd ak ay xale nga ne jox leen weccat ne leen dem leen bañ ñu gën a soreeg yow mhm. nga jox leen ay neexal ak yooyu ne leen dem leen naxee leen ko mhm. daal de dem parce que tamit fa nga ne dem mënoo leen faa yóbbu loolu moom yàgg nañ koo gis ci dëkk bi lu tax euh, génnewu pistu mën nañ koo këf wala mën naa mën na wala naa feebar ci bërëb ah mën nañ koo këf mën nañ koo kii xam nga yooyu yëpp moom lu ne mën naa ne ah. parce que di ma maaka gisuñu ko rek ma jigéen da nga koo gëmul ba koy xeelu fi mu toll nii ah kii daan la nii son yi bu Diop. mais caméra yaa ngi jël gis na ni nga ay yi ngay def. mais loolu ay piste la bu ko bu ko bàyyi mu réer ndaw si mën na réer. mën nañ koo këf que mën na toog fenn feebar fa que mën na feebar fenn mar day taali. waaw loolu lu ne mën naa ne. mën na nekk lu ne mën naa ne parce que euh, ndaw si ci jëm boppam. Mm. xam nga jamono ji dafa doy waar. Mm. lu ne moom mën naa ne mais daal ba fi mu toll nii daal. comme que démb wane ngeen euh, kii yoom ak yooyu. photo bi donc euh, képp koo xamante ni kii rek gis nga tegtal yi nga xam ne moom lañ ci wax. Ah. Euh, nga dimbali ñu ci parce que koo xamante ni kii tamit am na ay kii ak yooyu bu ñëwee daal li muy wax. Mm-hmm. ci la ñuy mën a sukkandiku pour mën a xool ba xam. Mm-hmm. parce que tamit moom bu ñëwee tamit waa ji na ñëwaat bu fekkee ne feeñ na. la muy wax. Mm. ci la ñuy mën a sukkandiku ngir xool ndax wax ja tegu na wala amoon nañ fi ndaw su réeroo it bu yàggut waaw ba mu feeñaatee ñooñu ñëwaatuñ te man xam naa ni feeñ xam nga ni feeñ na waaw ba mu ñëwee dañ ndaw si day noppalu mooy ki ñu amoon côté Saloum ki réeroon ah, day noppalu ba mu noppaloo ba léegi noppi noppalu ga ba léegi France daal di xadeen hmm. waaw te loolu baaxul nag bu ñu tegee fii dara ci penc mi waaw nañ bàyyi daal bu réeree ñu ñëw bu ñuy feeñee ñu ne day noppalu loolu moom baaxul kon dem leen noppalu ji ba suba ak jàmm